résultat yi dama koy denc ba suba suba laa koy ah yow ba bàyyi ko ba suba non lii kay suba lañ koy joxe la moom sa foto wax bu ngeen ma dégloo dëgg war ngeen xam résultat yi ni mu deme bu ngeen ma dëgg ah ngeen ma dégloo dëgg war ngeen xam résultat yi ni mu demee nee si côté mobilisation waaw soppe dafay jëg ma ne si côté présentation ah waa nopp sa jëkkër jël pay waaye ci côté question réponse bi waa yokkutee jël pay waa kon ku jël pay waaye tàkk na seen bopp waaye tàkk na seen bopp da ngeen a exécuté ah ñëpp jël pay tàkk na sama xanaa kontaan naa rek wala eh di jë nana ngoyaan bi salaamaaleykum comme niñ leen ko waxee woon rek ñi ngi fii tey ci yëmbal fekk si fi Ndeye Awa muy organiser festival kaay wane sa aar ñu ngi taxaw ak koo xamante ne ci ustaas yi la bokk nekkoon ñëw teewal Ndeye Awa Fall sëñ bi nuyu naa la waaw fay nañ la ñu ngi lay siyaar bu baax a baax ñu ngi dolli ziar bu wér wér waaw ñu gis sa tey jii nga ñëw fii fekk si Ndeye Awa Fall en tant que ustaas lan ngay ñaax Ndeye Awa Fall d'accord euh, Ndeye dafay suñu jigéen ci gox bi wax dëgg fa yàlla muy jàmbaar ci wàllu dégg nga maam yokkutewu quartier bi muy far di échanger ak man des idées ci lu bare ci seen groupe whatsapp bi di ma laaj surtout taxawaayu jigéen ci euh, l'islam euh, l'islam nu mu jàppee jigéen ba tax na tey jii dafa jaar kër ga expliquer ma ko fekkoon ma ci daara ji man la ñuy wax oustaz Sadio Souleymane laa tudd waaye oustaz Sadio mooy tour bi ma gën a siiwee may waxtaan ci jumaa ji euh, samp fi école franco Arab. bu ko defee nag ci la ñëw wax ma ko ko dama koy rafetlu faaw ma jaar def sama participation ah, ñu waxoon ko ne ko nag jigéen moom wax dëgg fa yàlla yàllaa ko njëkkoon a jox euh, àqam ak yelleefam ci alquran tuddee ko ab saar te tey bu demee ba agsi fii jigéen moom la ñu njëkk dretom ñu di ko Sumayya nekkoon di euh, soxnay Yaasir juru góoru Ammar ñoom nag dugg nañ ci lislaam ci euh, jàppandaluk seenug doom boobu di Ammar moo daan fréquenté yonent bi ba Yaasir jot ci Sumayya jot ci euh, yéeféer yi dal seen kaw ne leen da ngeen di saaga yonent bi mbaa ngeen weddi ko wa illaa ñu rey leen si la Sumayya jigéen boobu daa di euh, daa di joxe bakkanam ne bu yaboo ngeen rey ma waaye dinaa gëm yonent bi kon moom moo nekkoon di mbindaaful bu ñu njëkkoon a tuur di retom ci lislaam kon tey bu lislaam ak see fii c'est grâce à jigéen ñi kon wax dëgg fa yàlla sant ñeel na jigéen ñi cantak ngërëm ñeel na jigéen ñi ba tax na bi ñu ñëwee feeñalal nañ ko liñ ci xam ci xam-xam ak li ci histoire jàngale ak li ci diine jàngale loolu lañ doon waxtaanee fekkoon xam naa ak seegu leen waaye loolu laa amoon ci ay kaddu yoo xam ne mënees na ko ca dolli ci li nga xam ne jot nañ ko ca def ci suñu participation wa deug la oustaz deug ngeen oustaz bi limu wax ñu gis na senegal instant bi metti na metti go xamantene ñi ngi faat xalé yu ndaw yi euh, ci veille election yi yow en tant que oustaz nga yan ñaax dal nga mëna ñaax askan yi pour ñu topato seen doomi ndax gis nañ na instant bi ray bi bari na ak sacc yi ñi sacc ci xale yi dal waaw euh, mbir ci kat nek na di galancor bu magamak limay ñaax ndaw ñi moy ñu deggal seen wayjur yi seen euh, ndaw bu ko defé rek mëna raw mëna muccu ci lu bare waaye sa wayjur tere la parce que ndaw xamul dara moom xamul li xew du déglu tele wala boog lim koy déglu barewul mag ñi ñooy far di déglu ay journal ak ay information di xam surtout li xew ci dëkk bi kon ndaw lu ne daal li ma koy conseil mooy na jàpp baayam muy xaritam na jàpp yaayam muy xaritam suñ ko diggalee mu def buñ ko teree mu bay loolu bu ko ndaw ñi defee rek daa ñu mucc ci yu bare bare dëkk bi nag doy na waar nit ñi nag ay couleur lañu ñii dañuy baax ñii bon àdduna nag noonu la ñëpp mënuñoo mànkoo dem ci benn boor waaye saa bu bon yi amee rek dañuy ñaan suñu borom mu musal ñu ci waaye nit tamit boo bëggee muslu ci mbir da ngay nangoo dëggal say wayjur di leen di leen di dégg seen ndigal franchement bu ñu la waxee toogal nga toog ba man samay élèves sax loolu di digal bu ñu wàccee damay fexe ba kenn ku ci nekk am ku ma lay booleel mu yóbbu la kër gi parce que dama yor jardin ay xale lañ ay tuut tànk lañ xamuñu dara man mii wax dëgg fa yàlla bokk na ci lu ma gën a naqari bu ma sañoon daal sénégalais yi moo xam du sénégalais ku mu mën a doon lu bon daal baaxul nañ ko bàyyi te xam ne def lu bon daal jaru ko Euh, suñu suñ maanaam Sénégal suñu Sénégal la dañoo war a jàppalante ci li koy jëmale kanam mais waruñoo def loo xam ne da koy jëmale gannaaw te xale yi ñooy màgg ëllëg dañ leen a war a jàppale waaye waruñu leen waruñu leen a teg loo xam ne ay ay la di leen rey ndax ay sacrifice yoo xam ne kenn xamu ko di wut alal ba tax na ngay jël ay doomu jàmbur di leen rendi alal jooju ju sax alal jooju nekkul di alal joo xam ne du leew la maanaam alal jooju mënu jëriñ ci lenn kon euh, une fois plus nañu bàyyi li ñuy def te xam ne baaxul bu ëllëgee daañ ko layoo ak yàlla na ñuy nañuy nañuy jéem a góorgóorlu ci ut lu lew bay doomu jàmbur yi dañuy rendi ci loo xam ne teguñu ko ci dëkk waaw loolu laa amoon lu ma ciy sandi. ñu ngi lay bu baax a baax kàddu yi rafet na macha allah. ngeen ko gisal maa ngi leen di sant. di leen gërëm franchement. parce que El Vision waaw El Vision. Média yéen ñi nga xam ne wax dëgg fa yàlla yéen a ñu jàppandalal ba ñu mën a tamit wax suñu doléance euh, ba sénégalais yëpp man caa jot wax dëgg fa yàlla nekkoon na di loo xam ne dama ko doon dund wax ne xaw ma kañ laay am occasion pour lancer sama message boobu yéen ngeen ñëw jàppandalal ñu ko kon yàlla na yàlla jàppandal seen mbir yéen daal ca kaw ca kanam jërëjëf oustaz daal dégg na ci yéen. ba tey niñ leen ko waxee woon ñi ngi fii tamit euh, ba léegi ba duñu bàyyi benn yoon maa ngi taxaw koo xamante ne suñu yaay la mu ñëw fekk si fii Ndeye Awa Fall ci festival kaay wane sa aar yaay booy nuyu naa la fay naa la ñu ngi lay ziar bu baax a baax yàlla yàlla bi waa ñu gis ne tey mouvement yu bari ñëw nañ fi ay regroupement yow ban groupe nga bokk man maa ngi bokk ci ulay si groupe Oley si laa bokk groupe yokkute tubaarkàlla macha allah Oley si baax bëgguñu téenu te it muy natt bu baax boo xam te ni ku tegg rek di nga am di nga am 500000 wala nga am lu ko ëpp. ndeyaawa nag baax nekk ci koñ bi am yar am teggin yaayam baax mu bëgguñu xam nga ni ñun fi ñu toll nii amuñu jot ku nekk am nga fa war a dem waaye ndeyaawa bu nu woowee dañuy bàyyi sunu lépp nekk ci suba ba tey ñoo ngi fi ci ndeyaawa di defar ba mu baax. dëgg la yaay booy ñu ngi jub euh, le 8 mars journée mondiale de la femme tey jii boo doon ñaax sa mbokk jigéen ñi parce que gis nañ ne jigéen dafa sonn macha allah 6 heures du matin booy xëy da ngay gis ne jigéen ñi ñu ngi gàddu seen paan di dem tey jii boo doon ñaax jigéen ñi lan nga leen di ñaax pour ñu yokk ko. xanaa muñ ñun jigéen ñi nan yokkoo muñ rek parce que muñ rek mooy sunu gàllaaj booleeg nangoo liggéey booleeg am jom am fulla am fayda bëgg sa jëkkër yërëm sa jëkkër téye sa njaboot. teg leen ci yoonu siraatal mustaqim man ne loolu laay def man. dëgg la yaay booy en tant que jigéen nga gis ne suñu suñu raq yi maanaam yéen seen doom yi ñu ngi leen di jël di leen faat di leen sacrifier mu nekk phénomène boo xamante ne Sénégal mu ngi koy dund instant bi mu metti yow en tant que yaay yow yan lan nga yëg ci loolu. li ma ci yëg bari na léegi rek laa koy wax fii nee naa ndey awa maamani ko nan bàyyi nàmpalu juróom benn weer. ak nampalu ñetti wër ak nampalu at nañuy nampal seen doomi ñaari at ndax leg rayante bi metti na jamante bi metti na te lepp gatt xel ko waral and ak sa morom ngeen xarito di masé nga dox ba mu ngeen am problème bu ndaw rek nga rocc paaka jam ko koku xam nga sa xel manké na parce que bu sa xel maton do def lool te liko waral moy soow mi ñu leen di jox ñi naan ak meew mi ñu leen di jox ñi naan xam ñu fu mu joggé kon dama bëgg ñi nampal seen doomi ñaari wé ñaari at yor leen yor bu baax xale yu jigéen yi nga xam ne amaguñu jëkkër nu am fulla am fayda yem ci seen pooju ndey ak seen pooju bàyyi di dem di liggéey di wàcc di ñëw wala ñu dem di jàngi di wàcc di ñëw ba yàlla fekk leen fa ak xéewal ñu takk leen man de loolu laa leen di digal. dëgg la yaay booy kàddu yi rafet na maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. bëgg seen TV bi nag. fii El Vision Média El Vision. Média Média. waaw ma lay kontaan ci yéen rek di leen bëgg nag ñëw bi ngeen ñëw nag doon ñëw bu ma neex nag dëgg yàlla may bëgg ci ñoom di doomi géwal nag kontaan naa ci yéen trop. dëgg la nuru na ko sànq yaay boo dama laa gis nga taasu ci biir doo ñu ci mosal tuuti. waaw damay doomi géwal rek ndax dama ànd ak ulay si rek fental am lu ko fental fu nu jëm rek mu yóbbu ma lu ma am bokk ak man tubaar kàlla macha allah ma ne ko ulay yaay amari mari ngoone bu rakki dagam yaa boole su lee tal mbax sabar ye dee lax ey du ma yëg ma yëgul nag fu ma way fekk fa may wàcc kenn demul ba lax lii laa wax macha waaw soxna si nuyu naa waaw soxna si maa ngi lay fay. maa ngi bu baax a baax. dellu la ziar. waaw tey ñu ñëw fii ci festival kaay wane sa aar bu Ndeye Awa Fall di def Fallène création boo ñu doon wax ci Ndeye Awa Fall tey ci kan mooy Ndeye Awa Fall. waaw tey boo ma laajee ci Ndeye Awa Fall dinaa ci sawar. ndax nday awa fall moy doomu gox bi bëgg goxam bëgg koñam bëgg wa koñam nday awa faal du def dara bañu sutuma man mi nga xamanteni wax fa dëgg yalla bama fi nee cëpp ba légui séri la may wowe ta ba dara ba tay dara di ci nday awa faal bëgg na yëmbal bëgg na doomu yëmbal nday awa fall fepp fu mu taxaw yëmbal lay présenter ndax lan ñu avancer bëgg bokku ci nit ñi lu xew ñu mën ci gis suñu bop tay defena li duma ni c'est la première fois bi mooy troisième fois mais euh, nu mu tudd bi ñu def tey jii nii mi ngi doog am yëmbal du ma la fen ndax Ndeye Awa Fall ndax Ndeye Awa Fall bëgg nañu bëgg goo xamante ni wax fa dëgg yàlla nag lu mu def daal ñun dinañ ci mën a gis suñu bopp ndax Ndeye Awa Fall jaral nañu ko baax na yaru na teey na amu benn problème amu tak kenn xaar ma yàlla wax fa dëgg yàlla lu ñu soxla yëmbal programme buñ mënti am bu dee wàllu 16 bu dee wàllu kuyu mbubam 10 ci moom la jaar pour mën ka am ñun waa yëmbal bokk ngeen doon def benn manifestation léegi nii ci première jour bi manifestation bii ngeen doon def manifestation wu lan la. ñi ngi doon def festivalu kii daal lañ doon def euh, kaay wane sa aar ak comme àq ak yelleef pour jigéen ñi wane jigéen nan lañ koy téye ak jigéen lan lay jariñ ci réew mi loolu lañ doon def tey waaw. macha allah après boo may wax ci jigéen nan lañ koy mën a téye euh, lan nga may wax parce que sànq maa ngi gis ne ay ay mouvement yu bari ñëw nañ fi ay nopp sa jëkkër ay groupe soppi na bi yow boo ma doon wax daal nag naka nga may expliquer mouvement yi. waaw mouvement yi nag moom groupe fonk sa jëkkër la ak groupe sopp na bi ak ay groupe bi groupe daal waaye tey li ñu doon wax mooy ñun ñu fi dajee ñëpp naal wax dëgg yàlla li ñu fi dajale mooy jàmm ak salaam ak bëgg Ndeye Awa ak bëgg tamit ñun nit ku ñu jàppale ndax ñun jàpp nañ ne bu ñu jàppee ci Ndeye Awa rek ñun di nañ dem ndax Ndeye Awa wax dëgg yàlla ku wéeru ci moom moom di nga xam yoon bi ndax daje nañ fi waxtaan nañu ci yu baree bari ndax li ñu waxtaanee jigéen mooy que ñun jigéen ñooy sonn ci kër yi ñooy togg ñooy fóot ñooy raxas ñooy xëy 5 heures du matin di dem marché di jënd di jën ak a ñëw ci marché bi di jaay bala ñoo duggaat suñu kër 2 heures bu ñu añee 3 heures ñu gontaat caaroy uti ji ndugg fajar la ñuy duggaat suñu kër fajar la ñuy génnewaat suñu kër ñun jigéen daal ñu ngi nii yóbbulu ñu dara daal ndax fu jigéen taxaw tey defe naa góor fu mu taxaw jigéen war na faa mën a taxaw ndax ñun jigéen moom yaa fuu suñu moom dëgg la ñun jigéen yaa yaa fa yaa foo suñu comme niñ koy waxee damaa déggul olof nag ngeen jéggal ma boo doon tàggatoo sa mot de la fin lan la sama mot de la fin daal li ma ciy tàggatoo mooy kontaan nañu daal kontaan nañu wax fa dëgg yàlla ndax lii yàlla nañ koy def ay ati ati at bu mu yem tey te bu yàggee bu boobaa yàlla na gën a yaatu. ñu mën ci gis suñu bopp te lépp lu jigéen di dugg daal ñun ci suñu bopp ñaan nañ yàlla ñi ngi ci ginnaaw nda Awa Fall yàlla nañ ci gis suñu bopp te bëgg nañ ku ñuy jàppale ndax ñun ñu ngi mobiliser wu di jug ak daanu ñun jigéen ñi di def fukk ñaar fukk di dajale ba keroog ñu sotti ko suñu benn xarit mu gañe suba keneen defaat keneen defaat boole ko jënd saabu jënd omo jënd yëpp ak ay madaar di ko tuuse ngir lan avancement kon nag bëgg nañ ku ñu ba ñu gis ki suñu bopp bu ñu amee ñu jàppale it ñu gën a mën a liggéey ñun ay jobkat lañu ñun moom ñu yaa fuusuñu comme li ma waxoon sànq rek macha allah maa ngi tàggatoo nag euh, yàlla nañ ko feete ay at i at fekke ko ay déwén yàlla nañ fi taxawaat heure bii déwén incha allah delloowaat la kàddu yi yow it ñu ngi lay jaajëfal waaw ok wasalaam. merci beaucoup yéen a ko gisandoo. <laughs> salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax a baax. waa gis la tey jii nga ñëw fii fekk si Ndeye Awa ci festival Kaay Wane Sa Art ma bëggoon nga expliquer ñu tuuti ci festival festival bi. festival bi de xanaa kontaan ci rek na Ndeye Awa Fall commencement ba tey yëf yi ba ko dooree ba tey koñ bi ñun ñi ñooy groupement bu takku liggéey bokk fonk Seydina Mouhamed bi ci koñ bi lépp lu muy def day ñëw wax ñu lu yëngatu mu ñëw wax ñu. bëggul ñu mer bëggul kenn gaañi ko ci dara lu mu tuuti tuuti bi xeebun kenn ndeyaa wa daa ne ci koñ bi xeebun ñun ñi di tantaam xeebun ay jabar magam xeebun kenn festival bi daal lu dul kontaan ci rek ak di ñaanan yàlla ànd ak moom mu jeex ci jàmm ak salaam ñu feete ko ci jàmm feete ko nu mu gën a xumbe nag te nu mu gën a reye nag noonu lañ ko bëggee di kontaan ci ndeyaa wa ndeyaa wa moom wax dëgg yàlla day suñu doom ñu ne ci koñ bi bu dee politique bi moom la ñu gis bu dee sukkaru koor ndeyaawa la ñu gis programme bu am ci koñ bi gisuñu kenn ñun ndeyaawa la ñu am moo tax moom la ñuy tiitaroo gisuñu kenn ndeyaawa rek lañ gis dëgg yàlla moo tax ñu kontaan ci moom saa su ne lii mu sumb nag di ñaan yàlla mu kay def ay at yu baree baree baree bare wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ci ndeyaawa ndax ndeyaawa mën ta bon ndeyaawa ku sa yaa nga ni ndey ñang ku sa baay nga ni góor a faal ndeyaawa soow mi mu nàmp kenn du ko nàmp di bon dañu kontaan ci Ndeye Awa wax dëgg yàlla di kontaan di ñaan yàlla jàpp ko ci bis bi ren ñu jàppale ko ci. dëgg la yaay booy ñu ngi jub ci journée mondiale de la femme muy le 8 mars ma gis ne sànq seen thème da ci doon développé nan la ñu war a mën yoree jigéen. jigéen lan mooy taxawaayam ci biir kër et tout ma bëgg ba xam boo ma doon wax ci journée bii ñu jëm muy le 8 mars lan lay yan kàddu ngay dénk sa mbokk jigéen ñi. as journée de la bi da xanaa di ci kontaan di def jigéen ñi moom ñu ngi ci saa su ne saa bu ñu xëyee ñu ngi ci ndax oto yi boo yéegee fajar jigéen ñi ngay gis boo demee ci marché yi jigéen ñi ngay gis foo dem ci fuy fu waa liggéeyukaay boo gis rek jigéen ñaa fab ndax jigéen ñi bëgg nañ dërëm bu leen seen borom kër yi jox ñu dolli ci juróom ndax jigéen ñi ñoo bëgg lan na lu baax bëgg nañ seen njaboot duñu xiif bëgg nañ seen njaboot duñu tilim bëgg nañ seen njaboot duñu rafle bëgg nañoo téye seen njaboot ci biir kër gi saa su ne daal jigéen ñi daal moom saa su ne journée de la femme saa sune la ci ñun saa su ne rek ñu ngi ci ndax dëgg yàlla saa su ne ñu ngi ci dëgg fa dëgg la macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. sama doom. maa ngi lay ziar bu baax a baax. delloo naa la ziara bi. waa ñu gis la tey jii nga ñëw fekk si Ndeye Awa Fall ci yi muy def muy festival kaay wane sa aar boo ñu doon wax ci Ndeye Awa Fall ndax xam naa ne yow mag nga te da ngaa déplacé wu bàyyi sa yitte ñëw euh, lu waral loolu. waaw boo gisee sama ñëw teew fii Ndeye Awa Fall daa nekk doom ju baax doom ju yaru doom ju siwlise doom ju am maanaa doom ju xam boppam. ndaxte tey am naa ñaari xew waaye bési ndey awa bi moo tax ma yónnee demuma ci xew yi ndey awa dafa yéeg waa yëmbal lépp lu ma am suba ngoon gudd ak bëccëg yëmbal rek moo ko soxal lépp lu ñuy def ci yeneen gox yi moom moo koy xëcc mu ñëw ci yëmbal lépp lu ñu doon seetaan ci télé tey moom moo ñuy wone ba ñuy génn ci télé ñu mu ñuy gis comme ni ñuy gisee neneen kon nag dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla jàppale yàlla sàmm ko yàlla aar lu baax li muy liggéey yàlla na ko yàlla fay xolam ndaxte yàlla moom xol rek lay fayee te yàgg yàgg bu soobee yàlla dina am lu baax ku def lu baax lu baax rek ngay am. dëgg la yaay booy moom mu nekk en tant que doom boo ko doon ñaax lu muy yokk wala lu muy wàññi lan lay doon. waaw li ma koy ñaan rek mooy mu yokk muñ mu xam ne yoon bi sori na waaye bu soobee yàlla fi mu soxla dina fa egsi dama koy ñaan rek na yokk muñ ndaxte yàlla ku muñ rek laa àndal boo muñee rek yaa ngi wetu yàlla. loolu laa koy yokk ne yokk muñ rek. dëgg la yaay booy ñu ngi koy jaajëfal bu wër a wër ca tubaarkal la comme niñ leen ko waxee woon rek ñi ngi fii tay ci yëmbal toog ak ki nga xamante ne lu jig njaagata moom mooy njaag muy nday aw faal borom faaleen création ñu fekk si ko fii nag muy def troisième édition festival kaay wane sa aar nday awa nuyu naa la maa ngi lay fay Eva maa ngi lay ziar bu baax a di leen jox seen wàcc waay yéen waa El yëpp ñu gis le tey moom mooy troisième édition festival kaay wane sa aar tey mooy premier jour bi waaw festival kaay wane sa art bi mooy troisième édition di ñaan yàlla fekk barke ay at tey nag mooy premier jour muy le 3 mars ak le 4 mars. waaw ñu gis ne tey sa thème yaa ngi prévoir le 8 mars journée mondiale de la femme pourquoi nga inspiré wu ci loolu. waaw parce que ñun ay artistes lañ xam nga euh, journée mondiale de la femme ñëpp ñoo koy célébrer di ko di ko féete tey mu ngi sama waa koñ mosuñu ko féete sama festival ñëw mu nekk le 3 mars la 4 mars ah, ma dugal ko ci programme bi célébrer les journée mondiale de la femme moo waral tey euh, ngeen ñëw fekk fi mbootaay regroupement de femmes yépp ñu jël thème bi def ko droit de la femme ak ak yelleefu jigéen lan la ñuy def ba jox jigéen ak ak yelleefu ak parce que ñu ngi jox jigéen ak ak yelleefam mais dañuy ñaan di ñaaxaat ñu delluñu suñu ak ak suñu yelleef parce que moom lañu am en tant que jigen nga ne nga jël euh, journée bi def 8 mars ne da ngay célébrer jigeni ñi ak ak yelleefu jigen ma gis na jigéen ñi ngi dund maltraitance euh, ñu di len di seen borom kër yi di len fitnal yow naka nga dundé lool dal naka nga ko gis en tant que jigen wa en tant que jigen gis ko mu metti mom motax ma jël sama programme dugal si thème bi li thème droit de la femme bëgg ak ak yelleef ñu koy jox jigen ñi suñu jëkëri suñu suñuy mag xarit nañ ñuy jox ak ak bu mom ñun parce que comme li nga wax rek jigéen ñi ñu ngi dund ñu ngi dund ay souffrance yu metti si biir kër yi côté dépasse bi parce que jamono neexul jamono neexul kon ak ak yelleef boobu noonu nañ ñu koy joxaat parce que ni euh, ma ñu jàllale ko si rek euh, yaa ngi fan yëpp jigéen ñi nelawatuñu ba yandoor parce que ñun jigéen ñi ñooy ëmb ñay wasin ñay nàmpal te fan yëpp yaa ngi gis ah, benn phénomène bi xew suñu dëkk mooy suñu doom yi ñuy jël di sàcc di yóbbu di violer di rendi ah te kenn xamul lan moo ko waral ngir yàlla ak rasul na leen delloo xel si yàlla bàyyi ñoog suñuy doom parce que xale yooyu ñooy nekk jariñu ëllëg kon ñun ak ak yelleefu jigéen dañ koy soxla ñaan yàlla ngeen dooleel ñu si dimbaliwaat ñu joxaan ñu lu ñu moom muy suñu ak ak suñu yelleef deug la Ndeye Awa Fall ñu gis ne bi mooy sa troisième édition festival kay woné sa art festival kay woné sa art nan naka la la dikkee ba nga koy célébrer. ah festival kay woné sa art ni mu ma dikkee nee rek la parce que artiste lañ xam nga dañuy dem di jouer muy neex nit ñi ñi def ay téléfilm muy neex nit ñi ñukoy koy ci canal muy neex nit ñi ma mais pourquoi pas mënu ma organiser ben spectacle bo xamanteni ni damay yëg presque su ma ko gis ah ñi may andal jouer su ma ko gis sama bokk artiste ñëpp ñew santi seen bop première fois lañ ko defoon naa ah, affaire bi am réussite totale buñ ci yaakaarul woon artistes yëpp ñëw wuy suñu mu neex lool nag ñu ne ah bisimilah kon nag lii ah chaque année dañ koy def si kàttanu suñu boroom ñu def ko deuxième année bi passé artistes yi ñoom Leyti Fall Ibrahima Mbaye Soppe sama papa élage Hadj Lo borom El ñoom ñëpp ñëw bàyyi seen yitte yëpp ñëw si bis bi taaral bis bi jëmmal bis bi ñu xam ne lii du ndaw ñu tuddee ko festival Kaay Wane Sa Art dëgg la Ndeye Awa en tant que artist ñu ngi gis ne art bi instant bi mu ngi commencé di nuux surtout théâtre kat yi joxuñu leen seen gëdd daal da ngay gis ne théâtre kat yi anciens yi ñu fi nekkoon peut-être ñiy gée série sax ñooy xaw am tuuti mais anciens yi ñu fi nekkoon da ngay gis koo xamante ne day feebar am problème lu mu fajoo euh, nekk ci ay situation yu metti yow en tant que artiste naka ngay dundee phénomène boobu waaw phénomène bi ni ma koy dundee noonu la ko ñëpp di dundee ah, mu nekk lu ñu naqari lu ñu metti parce que ñun artistes dañoo war a am sunu ak ak sunu yelleef encore comme ni ma ko waxee si jigéen ñi. parce que ñu aar bi ñu am ni si la ñuy teral sunuy waajur si la ñuy yóbbu sunuy waajur ay màkk su la ñuy faj suñuy soxla muy ku góor ki muy ko jigéen ki parce que aar bi métier la. aar bi métier la kon sénégalais surtout autorité yi nekk si biir Sénégal fii nañu jàppale aar bi ñu nekk si aar bi jàppale artiste comédien yi moo waral ñetti créé benn association boo xamante ni pour sukkali aaru Sénégal la sukkali culture kon damay tàllal loxo autorité yi président Macky Sall première dame Marème fay dama bëgg aar bi ngeen téye ko théâtre kat yi ngeen téye leen seen fukki loxo ak seen juróom jox leen seen ak ak seen yelleef parce que nag dañuy bégal doomu aadama yi dañuy yee doomu aadama yi dañuy conseiller doomu aadama yi kon nag damaa bëgg ñu jox leen seen ak ak seen yelleef parce que du yoon du yoon théâtre Sénégal di suux du yoon kon damay ñaan di leen waxaat encore une fois jàppale leen théâtre kat yi jàppale leen théâtre kat yi parce que lii métier la. ok yéen a ko gisandoo xam naa dañuy dañuy bés baaraam rek dellusiwaat parce que nee naa la festival bi deux jours la ci kanam tuuti dinañ xool Ndeye Awa Fall lan la ñu denc.